lekkalante baa rayul nit sàccul jaayul dorog deful waaye ñu xam lu xew ba tax ñu gaawantu ko dee altine li muy nekk feet yëpp di liggéeyloo police ñu nekk ñoom ba deux heures du matin loolu yëpp li koy waral mooy ba ñu ngi koy bëgg a gund xatal waaye mënu luñ ko dara ba jaxate dafa xam li muy wax lépp wax yor na ay mhm. moo tax bi ni ñoo dañ koy ci ñaari infraction yi nga xam ne ñoom xam nañu benn taxawu ci bu njëkk bi mooy ñu ne dafa offensé mooy tooñ mhm. koo xam ni am na doole jiiti réew wala lu ko jiiti réew lu euh, mu bokkal ak réew daanaka daal Sénégal léegi dafa am lu masul am mooy premier ministre léegi dafa am délit d'offense au premier ministre. bu leen neexee ngeen rey lu masul am waxuma Amérique waxuma France waxuma Sénégal waxuma Burkina Faso. offense au premier ministre moom. nata leen ne mu ngi soog am en deux mille vingt quatre. te nekkul ci sunu code pénal kon ñun. côté boobu dañu nekk à l'aise pour tamat xotti li topp ba jax deuxième bi baa du nit ku wóor a lu mu wax daf koy firnde joxe preuve ñu ne dafa génne fausse nouvelle yéen ñi déglu baa jaxase lan la ma sa wax loo xam daf ko sos baa du saaga inspecteur Colombo la am na ñu ñu xàmmee ci sos ak saaga baa bokk ci fédération fen ak saaga baa xamul loolu bokk ci fédération boobu fédération wax dëgg lu métti métti nag dëgg day tàngalee léegi kooku mooy Bah Diakhaté kon rendez-vous altine inchallah le vingt sept le 27 mooy altine bi dans ñeenti fan rek incha allah ci ñeenti fan rek. <laughs> Euh, Olof Ndiaye dafa wax lu neex. du rëy Olof Njaay mu ne ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex ba jaxate dafa nekk fi mook imaam Cheikh Abed Tidiane Ndaw ñoom rek di leen jëw di wax looloo xam ne ñoom waxuñu ko di teg seen loo xam ne defuñu ko waaye buñ jàkkaarloo fi mag la nekkee benn doom dina neex ndeyam